أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أيها المشاهدون ñu ngi dellu sawaat seen waxtaanu koor di minbaru shahru ramadan di ñaan yàlla subhanahu wa taala yanoon yàlla defal dégg ah topp tay ñu andi ci waxtaanu koor xikma sew sew yi nga xamante ne moom la suñu borom namm ba faratal koor bu ngeen xoolee ci bi ñu njëkk jël ci waxtaanu koor di muy xutba bi jiitu don nañ leen fàttali ne yàlla day li tax mu faratal koor mooy taqwallah mooy ragal yàlla mooy finalité koor loolu nag suñu borom rek moo xam li mu ci dëxañ ci koor nag ci ngay fekk yu bare bari mu tegal la ko ne lii boo ci sukkandikoo boo ci wéyee dinga mujj am taq wallahi yal na defal ndax yaa ngi ci li suñu boroom digle nga ne ci lépp lu mu tere nga bàyyi moo tax suñu boroom ne walillahi ma fi samawati wa ma fi ard ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا كن لول موي كانيم ci ñi jiitu woon ba ci ñi mujj muy taqwallah boo xoolee mbokk yi koor تقوى mooy bàyyi nga lépp lu yàlla araamal min jamiil muftiraat lañ la fàttali woon ci lekk ci naan ci jaxasoo soxna yi jaxasoo borom kër yi yooyu yëpp nga xamantene da fay jëng jëm ci bakkenu dom aadama nga moytu ndaku lek aramul nan aramul araamul ci walu sëy bi dagan aramul waye ci bir weru ko yàlla tere lako ngir lan ngir xol sa allah ñaata ci ay jaamu yàlla ngay def nga mën a naan mën a lekk mën sa soxna yoy yep waye bir koor mu dindi loolu ne la bu ko def ci beccëk bi am na lu tax lay seet ci yow mbokk yi taqwallahi lay seet ci yow mbokk yi kon lépp lo xamantene da fay jàng jëm ci bakken mu ne la nan ko moytandaku kon dabtu nafs nga fexe ba sa bakken bi nga téye ko nga mën retenir sa bopp loolu bokk na ci li nga xamante ne mooy sew-sew yi tax yàlla faratal koor bokk na ci yooyu koor gi daf lay tàggat di la tàggat ba nga man contrôler sa bopp lépp loo xamante ne sa bakken bëgg nag te yàlla digalu la ko rek mu ne la moytu ndogu ko gis nga même xatta parfum nga laal ko araamul waaye mu ne la moo ko mënee moytu ndogu parce que bakken bi ci bànneexu moo tax kon bakken bi lay bañ mu dicté la ay luwaam bakken bi lay bañ mu dicté la ay loi mu ne la fexeel ba na nga téye sa bakken na nga ko maîtriser bakkan bi nang ko contrôler bu baax bokk na ci yooyu fépp foo xamante ne seytaane mën na fa am prox ndol mu ne bunt boobu nga tëj ko seytaan fu ne lay jaar kon nga tëj buntaam yi yonente bi saa salaam ne moom dafay daw ci yaram comme deret ni muy dawe ci yaramu doomu aadama nga fexe tëj bunte bobule mom shaytané du am ben wàll ci yow su ko defee rek moy yàlla gi new da fay dem ba jeex kon ki nga xamante mu ngi nuur bés bu ne ci moy yàlla jaamu yàllam day new waye ki bàyyi moy yàlla rek jaamu yàllam fay bari kon koor gi da lay tagat ngir sa jaamu yàlla bari lol yaa ngi waxtaan yaa ngi déglu waxtaan yaangi jàng yaangi déglu ñuy jàng yaangi def mboolem xeetu lu lay andil yow ndax wér yu bokk na ci li yàlla def si ay sew-sewam ngir jaamu yàlla gi man bari lool bokk na ci yooyu koor gi sew-sew yi ci am mooy def ay digleem bàyyi ay tereem kon loolu xeetu jaamu yàlla bu màgg la mbokk yi te ndënkaane la te bokk na ci ndënkaane yi gën a wér inna aradna al amaana ala alsamawati wal ardi wal jibal fa abayna an yaxmilnaha wa ashfana minha lan moo xew fa xamalaha al insan fa xamalaha al insan yàlla ne ndénkaane kóolute dénk naa ko ku ne ñépp ne yàlla dafa diis waaye doomu aadama ne yàlla man man naa ko ndénkaane li bari lool waaye yomb lool di benn lool muy lan muy def ay digleem bàyyi ay tereem mooy li mu santaane ci kaw suuf mission bi kan moo koy doxal fa xamalaha al insan al amaana ci mandu ci bàyyi alalu jàmbur lu sa yoon nekkul nga bàyyi fa jëflante ñi ñu jëflante bu rafet julli ñëw na fële koor ñëw na dem màkk ñëw na lépp lu yàlla di digle rek al amaana kan mooy nekk sama représentant ci kaw suuf ngir doxal kóolute googule wa xamalaha al insaan kon koor daf lay ñëw di la dimbaliwaat ci amaana boobule confiance pacte bi nga jaayanteex sa boroom nga jiim ko mottali mbokk yi ci biir weeru koor te dafay yomb lool da gis nit ñi dañuy sawar ci jaamu yàlla jaamu yàlla ci dimbalinte jaamu yàlla ci yërmande jaamu yàlla ci wàttee yi jaamu yàlla ci toroxlu ja si façon yëpp nga gis na ñépp wàccee nañ seen bopp te jaadu na mbokk yi ay koor de daana fi am waaye koor gu mel nii defe naa ne adduna bi yëpp xëj na ñu ngi koy door di dund wala boog ni mu mel nii ñu koy fàttaleku buñ ne amoon na it gëj na di am ñëpp ko yëgandoo ñépp a ko yëgandoo économie yi doxul leneen doxul mais doomu aadama objectif am du naa lekk du naa naan déedéet mooy na am taqwallah mooy na nga fexe ba booy dellu si sa boroom ñamu naan radiyallahu anhum wa radu anhu ñu man ci bokk yàlla gërëm leen ñu gërëm ko yàlla kontaan ci yow ne ah sama jàmb de li ma ko sante woon ci mission def na ko lan lay xaar ci yow ci waxtu yu mel nii mu tek mbass mo xamne aduna bi yeb jaxla nañ moy ana ñi muñ motax mu ne wala nablu wanakum bi shay'in min al khawfi wal ju wa nahsim min alamwali walanfusi walthamarat wa bassir sabirin allazina ida asaabathum musiba qaalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun su ma leen tegee nattu rek ñu dellu ci yàlla kon ñun ñépp ci war a bokk yam bu ñu saalit mbokk yi bu ñu saalit mukk waaye nañu ñaan lu ñu mën a ñaan nañ ko def nañu ñaan nañu ñaan mbokk yi nañu toroxlu ci yàlla waaye bu ñu saalit mukk ay fu ma jëm ay torox nañu ay man li day deena ay man day nangam déedéet alladina iza asaabathum musiba qalu inna lillah wa inna ilayhi rajiun nga am dënn bu yaatu am confiance nga féex doo dal aha kay dangay dal da ngay dal da am confiance bu ñu di tiit doo tiit lu tax parce que nga am nga wéttal ci alquranul karim incha allah ci dars yi di ñëw danañ ci ñëw kon nga xam ne am nga wéttal mbokk yi weeru koor wi weeru jaamu yàlla te it jamono boo wooree ba noppi bokk na ci xikma yooyu ngay ñaan للصائم فرقتان لا ينتبه يفرقهما إذا أفطر فرق وإذا لقي ربه فرق soo dogee bu ngoonee rek boo santee Samba Cissé Kébé da ngay bëgg alhamdulilah waaye boo daje sa borom ëllëg nga bëgg ci baabu rayaan mu ne ayna saimun ana ñu doon woor woor gan woor gu yàlla nangu mbokk yi mu ne udxuluha bi salaam ngeen dugg kenn du leen réglé ñooñu yàlla ci yàlla boole بوك نا سي ngëneel يوي فطر صائما nga fexe nit or nga jox ko lu mu doge koku aussi ngeenel la yo xamantene aj yolam da fay melni jox nga ki dog yol bu ñu tol ci koram te mom koram du dara du ci wàññeeku parce que jox nga ko lu mu doge yonent bi ne ben dogu tu tàndarma kon wër wi wëru dimmalinte la wax nañ ko sànq ci yërmande gi yi am yërmande ci ñëpp am na ñett ñoo xamante ne yàlla du delloo seen ñaan mooy assaimu xata yaftir wal imaamu al aadil wa dawatu al mazlum bi ñu si soxal mooy assaimu xata yaftir yaa ngi nekk ci bëccëg weeru koor loo ñaan ci lu baax yàlla dina la ko nangul kon bu ñëpp ñaanee adduna bi ñëpp ñaan ñu toroxlu bi ixlaas bi xudu yàlla dinañu nangul yàlla dinañu nangul insha allahu rabbi kon nag mbokk yi ci xikma yi nga xamante ne yàlla def na ko ci ay sew-sew ci biir weeru koor yooyu lenn la rek ci lu ñu leen andiloon yal nu yàlla defal tawfeex réew mi yàlla na fi yàlla def jàmm adduna bi yàlla na fi def jàmm mbas mii ah wax dëgg yàlla yàlla rek moo ñu ci mën musal bu ñu ñaanee toppat tegtal yi kër docteur di joxe bés bu deug yaangi deug yaangi deug kon nak nañu ñaan yàlla subhanahu wa taala mu oyofal ñu lépp waye ñu moy tandaku wala tulqu bi aydikum ila tahluka bul sop sa loxo ci lu lay lor de dedet kon nak nañu ñaan yàlla mu defal ñu tawfiq ñaan yàlla mu dolli ñu sutura wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh